asalaamaaleykum mbokki Ngor ñu ngi leen di nuyu bëggoon nañu dugg ba ci biir waaye mënatul nekk parce que tey la campagne bi di tëj te ñu ngi war a dem fii aéroport embarqué pour dem bi Bignona kon temps bi gàtt na te li ñu def ci Ndakaaru defuñu ko feneen kon kenn ku ne dañ day mosal tuuti rek waaye su temps bi permettroon dinañ dugg ba ci biir li leen mën a wax rek ci lu gàtt benn mooy lépp lu jëm lu jóge Soumbédioune ba jaar Wakaam jaar Ngor wiiriwaat ba dellu booru Yarax dëkku napp la te dégg ngeen li nga xam ne président Bassirou Diomaye Faye def na ko ci accord de pêche yi kon jën kenn dootul ne jën dina ñàkk ci senegal dégg ngeen li ñu def ci list yi nga gaal yi nga xam ne ñoo war a mën a napp fii ci senegal kon suñu mbokk mool yi nañu defaruwaat jubluwaat ci liggéey bi parce que napp mën na développer réew moom dong waxuma laa nag bu àndeek leneen ak leneen ñaareel bi mooy coowal suuf léeg-léeg day xaw a bëri ci boor yi ñu ngi ciy liggéey nag ñu ngi ciy liggéey waaye liggéey bi day ànd ak nag di xool lépp luy dëgg ñu def ko lépp loo xam ne jaarul yoon ñu teg ko ci askan wi en tout cas sous le régime du président Bassirou Diomaye Faye lu ñuy defaraat lan waaye lépp loo xam ne dafa tegu ci yoon it mënuñu koo déjjati fi ñu taxaw nii terrain bii nga xam ne at ci gannaaw àndina fi ay musiba bakkan rot fi bii terrain bii man mii maa recevoir ñi doon représenté Ngor te docteur Niang ànd ak ñoom jiite leen bi ñuy waxtaanee ba pare maa ci waxtaan ak président de la république nekkoon jël terrain bi delloo ko waa Ngor nañ ko delloo waa Ngor parce que terrain boo xam ne 6000 mètres carrés kese la mu war a andi musiba ba ñu ne bakkan rot na fi loolu dara jaru ko te ñoom buñ ci xeexee ba al toll foofu daf fekk terrain bi am lu mu représenté ci ñoom comme nag ab école rek lañ fi bëgg a defar muy loo xam ne njëriñ la ci société bi nañ leen delloo terrain bi waaye nag yéen waa Ngor xam ngeen ni Ngor mënul ñàkk sécurité faaw ñu am fi loo xam ne gendarmerie dafay mun a teew pour la sécurité de Ngor parce que Ngor ak île de Ngor yéen ñëpp xam ngeen li fi xew kon moo tax it am na leneen lu ne ci kannaaw loo xam ne faaw rek ñu libéré ko ba lañ fa bëgg a tabax ci brigade de gendarmerie mu mun a am parce que kaaraange bu ñàkkee fii ñu koy njëkk a ñàkk mooy seeni doom ak seeni sët kon réew dafa am nuñ koy doxale te lépp ci waxtaan la ak sottante xel kon nii ñu ko réglé ci bii suñ leen nee yeneen yi fi am yëpp te dañuy soulever ko bu soobee yàlla te lépp nag lalu ci dëgg néew ma yéen a am dëgg ci lépp néew ma yéen am tort ci lépp mais lépp nañ ko settantal bu ngeen amee dëgg ñu leen yéen a amul dëgg bu ngeen amul dëgg nag man amu ci problème ne leen fii amu leen fi dëgg te état it am na nu muy doxee kon réew mi président Bassirou Diomaye Faye daf leen ne jub jubal ak jubbanti loolu moo yor réew buxum yeeg randal yeeg sàcc suuf seeg jaay géej géej loolu lépp jeex na ci Sénégal bis ni ci tey waaye li ñuy gën a dooleel ba ñu mun koo def mooy ngeen jox ñu une majorité écrasante ci élection bii ñu jëm asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf yéen na ngi dégg noonu fii si ngoor président Ousmane Sonko ñëwaat na si suuf si nga xam ne kon ñu ngi ko doon xëccoo fii si Ngor.